cër bi ñu jox ci ci tey muy porte parole mu Benno Bokk Yaakaar wala porte parole allié lii soo gisee ma ne nañu commencé defal ñaan Ousmane Tanor Dieng da di lépp moom la wuute du tere ñu jox ko cëram un congrès moo ko mettre ci kanam parti socialiste Sénégal yëpp nangul ko un un con une defal ko un des applaudissements yoo xam ne unanimité moom lañu def suñu secrétaire général bi ñu demee ba tollu ci te les élections présidentielles sa vision et sa qualité d'homme d'État may ko mu wax ne dañuy gagner ensemble gouverner ensemble loolu tant que yàlla nga koy dimbale mi ngi koy def ba ni mu wane ginnaaw bi mu wanee ginnaaw it ñun ñi xam le règlement intérieur du parti socialiste xam nañ ne woon amuloon ku mieux placé wala ku ko waroon uutu ku dul Aminata Mbengue Ndiaye donc Aminata Mbengue Ndiaye uutu ko li fi Tanor bàyyi woon Aminata Mbengue Ndiaye di ko wéyal ñun ñi en tant que socialiste loolu la ñuy wéyal au nom du centralisme démocratique donc monsieur le maire les alliés na seen xel dal parti socialiste ci Benno Bokk Yaakaar nit ñu ko sande ñi ngi ci seen biir di leen wétali di ànd ak yéen di leen xamal ne lu leen metti metti nañ metti nañu lu lu ngeen bëgg bëgg nañu ko kon loolu mooy suñu position ci loolu leneen di si dolleeku moo di li ñuy def nii dañ ci defuñu ko sël dañ ci waxtaan ak ñi ñu ci waxtaanal yépp ndax le secretaire général empêché muy Badara du ñu de duñu toog mukk semaine semaine te rendre ñu ko compte ñu waxtaan position bu ñu war a occuper ñu occuper ko mu wax ñu waxtaan en collaboration avec Serigne Diouf son premier adjoint donc lu ñuy wax nii ñu ngi koy wax au non de tout le parti socialiste ñu ngi koy wax au nom du secrétaire général ñu ngi koy wax au nom du parti lui-même euh, li ma ciy dolli pour joxe kàddu pour ne pas monopoliser moo di camarade na seen xel dal parti socialiste am na nit ñuy nekk ci ginnaaw di wax mais li ci nekkoon démb moo ci nekk nu avons la culture de la démocratie nu sommes en démocratie amul dara dara dara loo xam ne mën na yëngal parti wala instance su parti bi. di sant yàlla bu baax di seen teewaay ak seen wuyu ci woote bi nga xam ne woo lañu leen ko tey pour war wax ci actualité bi nga xam ne moo am ci réew mi depuis quelque avant tout dañuy saluer clairvoyance le président de la république Macky Sall ci mu am gis-gis ak ci réew mi toll fi réew yi toll sax laa war a wax seet ne ñépp dañu war a ànd liggéey taxawu réew mi mu ñëw ci moment boo xam ne moment bu difficile loolu lépp moom président Macky Sall mu partage ko ak tous les sénégalais bàyyiwul kenn mooy lan mooy mu yaatal gouvernement bi nga xamante ne moom la yore te nag bu ñu fàtti ne depuis 2012 nga xam ne nekk na ak ay alliés yi mu nekkal te suñu doyen wax ko léegi alliés yooyu àndoon ak moom muy PS AFP MRD ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñi fi nekk rek moo tax ñu cité ñooñu mu continuer di liggéey ak ñoom te bu ñu fàttine itam doon na liggéey ca depart ba ak même waa parti réew mi nga xam ne tey ñu ngi saluer encore retour le président Idriss Seck man du ma wax ne Idriss Seck dafa dugg mais dama wax ne dafa dellu si que il dafa bokk ci acteurs yi nga xam ne en 2012 ñu ngi ñoo porté woon président Macky Sall à la si suprême donc tey du ma wax euh, euh, ne dafa dugg si mais pour man dafa dellu si ñuy saluer loolu si de passage su ko defee nag loolu bi mu amee mu bari trop ay wax mais ñun suñu position mooy ki nga xam ne mooy suñu njiit di suñu président de la république di suñu président wu parti li mu tracé ligne bi mu tracé ñun moom la ñu jàpp ne mooy meilleure façon boo xam ne mën na gën a yaatal démocratie ci Sénégal te mooy lan mooy mu yaatal yaatal boobu mu yaatal ñun nangu nañu ko ndax nag nit ki bu fekkee daf la jiite. su amee xalaatam ndax la tax nga jiital ko da nga ko doyloo le président cinquante huit pour cent des sénégalais ñoo ko doyloo bon tey bépp bu dogal boo xam ne indi na ko ñun dañu war a adhéré wu ci dogal boobu loolu moo tax ñu woote pour ñu xamle ñun Benno Bokk Yaakaar bi nekk fii ci commune Kër lan mooy suñu position suñu position la dañ may may rek tuuti ma laaj ko mbooloo ndax li président Macky Sall teg muy gouvernement d'élargissement mu yaatal ko dugal ci ñeneen ñun commune Kër d'accord nañ ci wala ne buñ ci d'accord ne ñëpp ko jël defar nañ ci parce que nag nit ki bu la jiitee xalaat naa ne ki la jiite sax julli su fekkee ne bu sëggee laa damay jël damay àbbu eh, waxu kenn ku bokk ci ñun koo xam ne souvent damay jël lu bari ci ay waxam ndax nit ki bu la jiitee bu bu bu sëggee bu sujjóotee nga taxawu bu sëggee nga siggi kooku mënul nekk ki la jiite xalaat naa ne imaam bi bu sëggee da ngay sigg bu siggee nga siggi ainsi de suite bu juumee nag nga sàbbaal la waaye feeg juumul da ko war a topp am déet kon nag loolu moo tax di président Macky Sall dogal ñun amuñu fi lu ñuy commentaire lu dul accepté nañu ko à 100 pour cent te wane na ko may saluer ñu bees ñi nga xamante ne ñëw nañu fekk ci président Macky Sall te ki ma ci gën a mën mooy suñu frère le président Idriss Seck ak ñu mu àndal yépp ci acte bi nga xam ne pour man acte de citoyenneté dëkk moom moo mën a tax nit def lii ndax ku xam Idriss Seck xam fi mu toll ci politique su doxee tey ba mu dellusiwaat ñëw di ànd ak président Macky Sall gis nañu ne loolu li tax mu def ko mooy xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo war a ànd pour liggéey ko te loolu dafa war a wàcce ba ci base bi ci suuf di saluer aussi retour ñi nga xam ne c'est des ministres nekkoon fi nekkatuñ ci gouvernement bi commentaire bu ne ñu def ko ci waaye xalaat naa ne démb wala bërka démb bi président Macky Sall la wooyee woo wootee euh, euh, secrétariat exécutif national leer na ne ñooñu waxuñu dara li président Macky Sall la ñu wax muy kan ku ci mel ne Mouhamed Boun Abdallah Dionne euh, Oumar Youm Ali Ngouille Ndiaye Amadou Ba ñoom ñëpp ñëw nañ ci wetu président Macky Sall ñëpp gis leen ñu def déclaration xam xamle seen ancrage ci ci parti bi xam xamle aussi seen nekk ci wetu président de la république loolu nag li muy wane mooy li ñuy commentaire yëpp ñooñu ñu ngi ba tey ñu ngi ànd ak président Macky Sall loyalement ñun nag suñu ànd ak président Macky Sall eh, faw ñu leeral ko dañu ànd ak moom ngir intérêt. suñuy population loolu yàlla mu ñu ciy dimbali ndax bu ñu fàttali ne dañu nekk ci commune boo xam ne euh, dafa xaw a doy waar ndax ni mu bindoo la commune de Kër Moussa bokk na ci commune yi gën a mag ci Sénégal mais bokk na ci commune yi gën a compliqué parce que mu ngi bokk ci commune yi nga xam ne dañu ëmb commune ci biir pour ñu ko xamul tey boo xoolee la commune de Pout mu ngi nekk à l'intérieur de la commune de Kër Moussa loolu nag ay jafe-jafe la mais te yàlla dimbali nañu la majeure partie ci suñuy dëkk yi li ñu ci président digoon def na ko ñun aussi war na ñu delloo ko njukkal waaye nag bu ñu fàtte ne depuis ñu ànd ak président Macky Sall 2016 à nos jours passé nañu fi quatre élections yoo xam ne dañ ko gagné haut la main en commençant par le référendum ak la ca xewoon yépp yàlla dimbali ñu ñu remporté ko mu ñëw élection euh, au conseil des collectivités territoriales mu fab Kër Moussa dénk ko tête de liste départementale bu Thiès yàlla defal ñu ci ndam lu rëy ñu jóge ci ñëw élection locale euh, pardon élection législative en 2017 ñu gagné ko haut la mais malgré que ñun amuñu ci benn candidat ñu ñëwati en 2019 enfin pour les élections présidentielles ah Kër Moussa distingué wu ci am résultat boo xam ne yaakaar ne dans le département de Thiès kenn du ko werante liggéey boobu nag dañ ko fas yéenee continuer tant que ñu ngi dese benn noyyi ci kaw suuf ànd ceeg suñu partenaires yi pour que président Macky yaakaar bi nga xam ne am na ko au niveau de Kër Moussa yaakaar boobu toujours muy gis lu kawe njortam te yaakaar naa ne loolu mooy continuer. donc ñu ngi remercier tous les militants sympathisants les chefs de village les femmes les jeunes ñoom ñëpp teew nañu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal nag ne liggéey bi nañ ci nekk guddi ak bëccëg sax ci on temps vers des élections mais damay wax toujours ne même si les élections s'organisent demain on va gagner incha allah pare nañu pour dem élection ak waxtu bu mënti doon te biir nañu ne suñ ci demee ak coalition bi ñu àndal muy Benno Bokk Yaakaar pour ne dañuy gagné élection yi kooku nekkul hors du jeu donc ñu ñëwee si ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment di ñaan yàlla itam suñu ndaje mi yàlla bi mu nekk suñu mujjub ndaje euh, lii déclaration bi la ñu bëggoon def pour ñëpp xamee ko noonu ne li nga xam ne président Macky Sall def na ko yaatal gouvernement dugal ci ñeneen loolu ñun ànd nañ ci à 100 pour cent te dinañ ko ci soutenir lépp loo xam ne mën nañ ko taxawu daañ ko taxawu taxawu ministre yi nga xam ne ñoom la fi teg ndax jàpp nañu ne c'est des ministères de la république yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu nekk APRO ñu nekk feneen ñun moom la ñu yemal li ñu amal solo rek mooy ñoo xam ne dañuy liggéey dans l'intérêt du pays. appel bi may lancé euh, ma am sax précision bu ma def foofu avant ñuy def point de presse bi. alliés yi nga xam ne ñu ngi fi yëpp informé nañu leen même suñu alliés réew mi par le biais seen secteur général nga xam ne moom la ñu xam kii yoon woo nañu ko waxtaan nañ ci ak moom amoon na intention sax pour fekk ndaje mi ça si dama koy remercier ci loolu mais xam nga parti du yow rek yow yaa ko yor dafa am ñu mu àndal peut-être des nañu ay réglages yoo xam ne ci la ñu nekk mais toujours ñun dàq ñu ne war nañu mën a ànd ak ñoom. parce que le président Macky Sall bu mënee ànd ak président Idriss Seck yaakaar naa ñun ñi nga xamante ne ñoo di seen njaboot war nañu mën a wu pour dimbali leen ca lool parce que ñoom li ñu bëgg il faut ñun ñu jàppale leen ci nan lañ leen ciy jàppale mooy ñoom nañu ànde ca kaw ñun ñi nekk ci ñu ànde ko noonu pour mën leen a dimbali.